bi wax itam ci euh, xibaaru jaww ji ak température yi suba gi mu mel ne euh, fi mu ne nii nag euh, tempéra température yi xaw na nu yéeg bu baax a baax bu weesoo Ndoukoumane Kaffrine mi xëyee ak 18 degré moo gën a feex ci kart bi bu ko weesoo température yi dina yéeg ndànk ndànk ndakaaru mi faral di gën a sedd tey moo gën a tàng ci suba gi ndax mi ngi yeewoo ak 24 degré Thiès moom ma nga ca 19 degré Diourbel ak Kaffrine ñoo fi tane ci 18 degré pardon Tambacounda sax laay wax moo tane mi ngi ci 17 degré waaye sorewuñu mu mel ni boor yi bassin arachidier bi moom euh, li ñu seddoo rek mooy diggante 21 degré jàpp 18 21 euh, ca euh, Fatick 21 ca Kaolack Kaffrine ak Diourbel 18 degré Matam moom mi ngi ci 22 soo leen xoolee carte bi itam diwaanu Ziguinchor Sédhiou ak Kolda sorewuñu ndax ñoom ñi ngi ci 21 jàpp 22 2 degrés ñu xool après midi bi euh, naka la température yi di gonto ndakaaru mi euh, xawoon na tàng ci suba dafa mel ni moom moo tane ci ngont mi naaj bi mi ngi un peu partout sur l'ensemble du territoire mais 33 euh, degrés mooy la ni des mini ñu ngi koy am ci dakaar xam ngeen ne dafa jege péex mi lool su weesoo 33 ci dakaar bu leen xoolee itam yeneen ni gox ci réew mi naaj baa ngi ne dàng boole ko tàngaay ndax ndax 41 à l'ombre ca Matam 40 à Tambacounda euh, diwaanu Kédougou ñi ngi ci 37 degré euh, fu ci mel ni Kolda Sédhiou ak Ziguinchor ñoom ñi ngi ci 36 jàpp 37 degré bu leen xoolee diwaanu Njaareem sama dëkk ñoom ña nga ca 41 Kaffrine mi tamit euh, mi ngi ci 41 Fatick 39 Kaolack 40 et puis Louga 38 degré Saint-Louis moom mi ngi ci 40 mi ngi ci 39 degré kon jàpp leen euh, ne tàngaay bii mi ngi dugg si ndànk-ndànk euh, bu tàngee nag dañuy faral di wax euh, askan wi ñuy naan lu bëri di déshydraté wu waaye itam di toog ci ker gi moytu naaj bi ni ko Oumy Samb di waxee. lu jëm ci wàllu marée yi euh, marée haute bu njëkk bi ñu ngi koy xaar ci kanam 11h22 euh, muy diggante yor-yor euh, bi nag bi ci des nag moom bu suuf seddee la 23h46 minutes marée baas bi ñu desee ñu ngi koy am boo di tàkkusaan bu juróomi waxtu jotee ba tegal fukki simili ak ñaar ñu xool jant bi fan la toll 7h12 la fenk temps yi day biddanti ba noppi itam di teel a fatu 18 lay so moo tax gis ngeen léegi. timis julli dañ koy teel a julli pratiquement ay booru 19h la mu nekkoon xibaaru jaww ji ëllëg incha allah Oumy Samb dina fi teew euh, defar ko na mu gën a baaxee 7 euh, jot na ba tegal euh, fanweeri simili ak ñett ñu àddu ci gëstu bés bi soxal wàllu caada. aywa tey la aljuma Oumy Samb xam naa altine incha allah euh, lay ñëw ak euh, soxna naata euh, mbay bu ko defee ñu wëyal li nga xam ne moom mooy xibaaru jaww ji maa ngi leen ko doon wax sànq ci njalbeen gi dañuy taxaw seetlu ci exposition maanaam daal wane liggéeyub Cheikh Anta